na donc euh, may leen ñu dem jëliwaat yaay Sidia Diatta ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax a baax a baax parce que nag jokkoo téléphone bi moom moo demee noonu donc euh, dañuy dem jëli yaay Sidia jaata donc mi ngi sone normal allo allo waaw. waaw. d'accord yow rek la ñuy déglu ma maman. waaw oh là là kii bi mooy def defoo donc euh, déggante bi mooy def défaut sunu diggante ak mama uh-huh. waaw dëggante bi moo moo xaw suufe lool lool sax ba ñi nga xam ne ñoom ñooy déglu dégguñu dara uh-huh. waaw dégguñu dégguñu dara wala nga xaar kon ma woowaat la léegi waaw wala ñu envoyé ma beneen numéro ma mën cee woote léegi nii waaw wala nga joxe waa ñu yokkal la waaw wala nga jox ma ngeen ñu envoyé ma beneen numéro léegi léegi ma wote si allo waaw xaaral ma jël ko waaw ay ca waxal waaw waaw waxaatal 77 bamtuwaatal waaw waaw ñaata d'accord maa ngi la ci woo léegi waaw maa ngi la ci woo léegi nii waaw donc euh, ngeen jéggal ñu bu baax a baax a baax ñu dem jëli yaayu Sidia jaata déggante bi moom moo xaw a suufe ci sunu diggante ak moom mais dinañ leen ko dégtal léegi incha allahu rabbi donc dañu koy dem ràppale ji ànd ak moom ci li nga xam ne ni moom moo di euh, waxtaan wi allo allo waaw salaamaaleykum maman mi ngi soog a baax allo allo oui maman ñu ngi lay dégg bu baax a baax a baax. waaw. waaw ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk internet yi ñuy seetaan. waaw. dafa nekk xale boo xam ne xale bu sawar bugg a waajuram yi. léegi Sidiya lépp lu nekk ci kër gi buy def lu mu am mu jox ma ma dem jaay ñu def ko ci kër gi papam depuis bi si dee gaañoo nii mhm. feebar naa ba léegi munul wér ba léegi munul wér man rek may góorgóorlu di dem di ñëw ak magom bi magom bi takk jabar génne na ne kiyam këram léegi suñ kër daal ñun amatuñu benn xale bu góor lu dul ay doomi jigéen mm-hmm. ak toppam mm-hmm. ak tekki Sidia daal moo ñuy jàppale lépp ci kër gi mm-hmm. bu bu mu xoolul xool xoolul ni jaay xoolul tëj muy jàng jotee mooy jënd xale yépp fourniture fii ci kër gi waaye ren ren ñépp ko jooy même doomu doomu nijaayam yi yépp ko jooy kenn mënul am ay fourniture yi doy di takkale rek takkale rek ñun daal moom Sidiya mënuñu ko patte mais maman lekk bi fii ci kër gi mhm. day débrouillé nekkul di la di liggéey de mhm. léegi dafa commencé liggéey def naa ñaari weer rek affaire bi ñëw Mm-hmm. waaye nii lay takkale fii àll bi be mu jox nii mm-hmm. ñun daal moom ku ñu nekk nii jaaxle bu rëy moo nekk ñun mm-hmm. jaaxle waaye ñu ko jox yàlla ndax Sidiya xeexoon bu mu xeex nii du caagin Sonko de avenir avenir moom la xeexee avenir ñëpp ci Sénégal waaye yàlla loolu lay def bu ñeneen keneen mooy dee keneen lekk mhm. moom tam bisam moo si jot mhm. waaw loolu rek laa mun a wax lu sore ci Sidiya dara dara dara dara mhm. may wax lu sore ci Sidiya sama xol bi jeex wallaay ma massa sama xol jeex massa mu nekk nag journée bu metti woon ci yéen naka la demu Sidiya mel ak naka la leen def jour boobu nga xam ne ci lañu ko faatee ak lan la ngeen gis ne moom moo faatoon seen doom jour boobu moom bu muy faatu sax moom dafa demoon àll arrosé bu mu ñëw fekke dama ko yónnoon dañu amoon xew ma yónni ko ma ne ko denc naa buy après nga andit ma ko mu ne waaw war mhm. mu fàtte buy bi bu ñu ñëwee mu may ne man fàtte naa li ma yónni ma ne ko waaw man dinaa dem ma dem andi loolu par mu génn mu génne ndeke dem na man tam ma pare dem àll bi ma demee àll jël buy bi jotuma liggéey ci buy bi sax ñu woo ma téléphone. Mhm. ne ma yow yow yaay studio ma ne ko waaw ah boromam daf ma ne sax téléphone bi lay woo nii xam xam ne nga boromam. ma ne ko waaw mu ne ma koo kal la ma ne ko Sidiya mane ko anam mu ma ah dañ ko door bal de ma ne ko bal mu ne waaw ci laa jóg yaram ñeen ba ci tali ba di daw di daw beneen góor moo ma jàpp ci yoon bi mu ne ma solal sa yére lan la ma nettali ko ma sol bi ba pare di daw ba fu ma kalandoo jot balaa ma dem man kay dama xawoon dog dog kero la mm-hmm. xawoon dog laa wax lu ma munal ci kër gi ah yàlla rek mm-hmm. nga dem nga dem ah? fekk fekk néewam fekkuma néew sax man jotumaa yegg hôpital ah waaw jotuma yegg hôpital. balaa ma yegg hôpital ñu ne denc nañ ko ba pare naa dellu fekk yoon bi daal neexul. Mhm. naa dellu papa moo jot a dem te kooku jotuñu ko woon. waaw. jotuñu ko woon fekk denc nañ ko ba pare. nii ngeen ci toll nii est-ce que jamono jooju wax nañ leen. ñi ñi mu nekkaloon xalaat nañu ne fii lañ ko faatee wala kii moo ko faat bal bi li tax ñu dóor ko ko est-ce que yooyu yëpp jot ngeen ci am ci ay information jotuñu ci am information lay waaye waa Pastef bu ñëwee waa Pastef bu ñëwee mhm. nee nañu def nañu enquête waaw def nañu enquête de waaye enquête boobu nag man mun maa xam ku faat kan la waaye bal de bal lañ ko dóor mm-hmm. bal bi bal bi won nañu bal dañuy photo dañuy photo bal bi mm-hmm. waaw dañuy photo bal bi mm-hmm. won bal bi waaye bal moo ko dóor bal lañ ko dóor boobu ba tey metit ak ñu tas yaakaaru famille bi comme ni nga ko waxee ak li ngeen di dund lépp lépp lépp ci métit ñàkk seen doom nii nii nii te dara tegul leen ko lu dul xëy na nguur gi fi nekkoon ak li ñu bëggoon a teg ci réew mi moom mu bokk ci doom yi nga xam ne nii jom ak fulla ak fayda taxoon mu génn di bañ uh-huh. loolu defal ñu ci jàngat mama waaye itam nga wax ñu lan ngay xaar exactement ngir bu góom boobu uh-huh. mënta sedd ci yow tamit mu tane kay li ma xalaatoon depuis wax euh, Macky mi ngi xaw ma nekk fii lay wax. waaw. pour affaire baalaate boobu nee naa leen baal man baalu ma tëj. daal nañu wax lu tax ba mu suñu doom yi. Mhm. il faut mu wax ñu lu tax mu rey suñu doom yi. Mhm. waaw mu mun na wax lu tax mu rey yi parce que moom. ñoom ñoo ne xale yi lu leen metti ñu génn wax seen metti mhm. kon waroon na déglu xale yi lan lan moo tax ñuy manifester lu tax dégluwul muy muy wax joxe droit pour ñu rey xale yi mhm. lu tax mu joxe droit pour ñu rey xale yi waaw mhm. ñuy rey ñuy tëj loolu ban ci ban loi la te loi moom moo ko joxe woon ñu lu tax mu def lu mu mel. Mm-hmm. waaw ba fexe mu ñëw. Mm-hmm. ku nekk mu wax ko tax. ñu teg ko ci yoon. waaw. Mm-hmm. waaw yoon daal na def liggéeyam. mu leeral ni kii ku nekk dëgg la doo gisaat sa waaye ku nekk nga xam luy dëgg. waaw waaw. di leen ma masawu di masawu paa bi bu baax a baax a baax a baax di leen wax ni combat bi ñu sumb incha rab yi yàlla nañ ko gañe